jukki naka lu jëm ci njiitu réew bi Macky Sall mi nga xam ne daal mu ngi xëy a démb a ah, wër rek ah, loolee di xalifa généraux yi li ko dalee nag Tiwaawoon ba ca Ndiassane jàppale ne le quotidien national Le Soleil la mu cay xamal rek jamono ji ah, moom mooy seq nag ñoom nag waxtaan bu yaatu daal di fa rek yëkk ay kàddu nag muy kàddu yu mujj yi nga xamante rek moom la yëkkati ci mbubbuk président de la république njiitu réew mi Macky Sall nag foofee ca Tiwaawoon daanaka sargal nañu ko fa fi def naka noonu tamit ci elimaanu jëwrin ba mu samp Vox Populi yéenikaay moom nag nee na dafa mel ni yëf yi ab tournée tàggatoo kot la ko duppee njiitu réew Macky naka daal di demoon yóbbu fa délégation am jiital ci rek Amadou Ba mi nga xamante ne ni moom moo fas yéene rek jiital Benno Bokk Yaakaar ci loolee di wooteeg présidentielle yu atum 2024 Benno Bokk Yaakaar moome ak Amadou Ba jàppen sax ne Amadou Ba ma leen a jiital jamono ji xalif ba jot na ko ñaanal bu ñu koy xayma njiitu réew Macky Sall nag jaar na ca Tiwaawoon Njaasaan foofee nga xamante tamit moom mooy Thiénaba ñoom ñëpp ñu euh, ndokkeel ko rafetlu liggéey ba mu euh, jot a def l'observateur xiinikaay nag nañu njiitu réew Macky Sall moom ma ngay liggéeyal rek Amadou Ba ci kanamu kilifa euh, diine yi jàppale nag ni moom njiitu réew Macky daal jot na ko jël dénk ko xalif généraux yi Tiwaawoon Njaasaan ak Medina Baye ñaan nag jàpp na rek ne ñaan lu am solo la waaye daal lem ko gën a amal solo jamono jooje bokk na ci rek askan wi dem woote ji bokk na ci nag li nga xam ne daal moom mooy la l'observateur yéen kay xëy na fàng ci xëtam wu njëkk enquête moom ci cooloolee nee na njiitu mi daal dafa mel ni moom dafay jël leng yi daal daal di koy jébbal kii di amadu Ba ndaxte naka démb yóbbu noo équipe de campagne am ca foofee ci kanamu xalifa général bu Tijaan yi muy ak équipe boo xamante nag amadu Ba Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ñoom daal ñoom ñooñee la daal di woon a jiite ngir naka sàkkul lenn ay ñaan bokk ci daal loo xamante ne ni enquête nee na ko fàng ci xëtam wu njëkk la tribune yéeni kaay moom ci cooloole nag nee na ab tukkik nemmeeku bu mujj la rek jëm ci njiitu réew Macky Sall foofee ca Tiwaawoon ànd ceeg Amadou Ba foofa nag daanaka tàggatoo na tamit ak waa Ndiassane waaye njiitu réew Macky Sall la tribune yéeni kaay lam ñu ciy xamal rek moom mooy donte àgg na rek ci yenn ci ay yi bu ñu koy xayma dafa mel ni dafa fàtte njabootuk njegeen Serigne Khadim Lo ak euh, Gayndel ak Cheikh Nema dara bokk na ci daal li nga xamante ne ni tribune yéen kaay nee na ko fàng ci xëtam mu njëkk ndax njiitum réew Macky Sall nag moom dafa am lu dox digganteem la la tribune moo samp laaj boobee laata nag mu ci am lu ci leer critique yéen kaay ci xëtam mu njëkk nag la mu waxtaane te ji daal moom mooy Tiwaawan na samp na Amadou Ba negeen ni ab candidat bokk na ci daal la nga xam ne moom lañu ñu fa yëkki negeen ay kàddu tukkee rek ci xalif ba moom mooy Amadou Ba futur président muy li nga xamante nag tey ji moom la yëglekaay yi xëy na fànga ci seen xët bu njëkk ci loolee le point actuel la mu ci wax moom mooy jamono ji Serigne Babacar Sy Mansour moom nag Amadou Ba la woteel jamono ji ci xëtam mu njëkk nañu nag Amadou Ba futur président kaddu la rek yoo xamante ne ni daanaka ñu ci bëri daan ñu ci am ab jàngat bokk na ci nag ñi nga xam ne daal mën a wute xëy na ak la fas yéene tukkee ci wàllug urne bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataangoo laata loolu Mohamed Boun Abdallah Dionne moom bàyyi na nag bisis ba noppi rek gën a téye rek candidature am yéene bi nag xëy na ñu ji dajeem ak njiitu réew Macky Sall daal fi nekk nii dafa mel ni daañu ne runkum bu ñu koy xayma ndax njiitu réew Macky Sall nag dana gën a jëmal li nga xam ne daal moom la doon euh, xuppe gaa ñi bokk na ci nag dàq képp koo xamante ne ni àndoo ak politique am loole des na dinañ di ko waxtaanee les échos yi ni la ñuy ubbi mu xëy nag di ñu xamante ji njiitu réew Macky Sall jaar na ca Tiwaawan Njaasaan ak Cenaba ab tournée tàggatoo la nag ba noppi rek tournée campagne la jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Amadou baax ci les échos ba léegi bilan bu Lat Diop xëy nañu nag ne ko fàng tamit mu mel ni daal ñi nga xam ne moom a doon liggéeyal rëccu nañ bu baax a baax li tax mu fa daal de jóge ndax Lat Diop bu ñu koy xayma bàyyi na ndek fukki milliards ak ñaar ci seen nupp euh, kees loolee bokk daal ci bilan bu am solo mi nga xamante ni daal jot na ko def moom euh, Lat Diop jàppale ni ci libération yéenekaay la ñuy tabbi àdduna ak jëmale ci euh, mbiruk Mbaye Jaxate mi nga xam ne daal la moom dañu ko faat yéenekaay bi nag nañu moom dawalkati Jakarta dañu ko tegal ab ndëgg sërëx ba noppi euh, faat ko ca biir guddi ga foofee ca biir jur Jurbel moom Mbaye Jaxate nag ñaar fukki at ak ñaar kot la daal di woon am dañu ko rek jamate ay paaka ña nga xam ne nag ñoom ñoo def jëf ci ni mel dañu ko ndëgg sërëx ba noppi euh, jël motom faat ko jàppale ni loole bokkoon ci jàllu yéenekaay bi xëyte ji di xew foofee ca biir Diourbel ndaxte tàng na jër bu ñu koy xayma keneen ku tàng moom mooy Sadio Mané ca Tukkala Tribune Sport la ñu koy fekk jàppale ne bokk na ci nag ah, la ñu duppee tey ji daal ah, raay ak buur ya foofee ca biir Arabie Saoudite Sadio Mané ah, lakkatina caax yi Al Nassr daal di am ndam bokk na ci nag jamono ji forme bu am solo mi nga xam ne daal doomi pendanaar bi jot na ko am gayndeek Sénégal yu jigéen tam ñoom dëppar di nañ carte gi seen diggante ak Mozambique ba noppi qualifié jëm ci wàllu barrage Sénégal ak Égypte mu mel ni daje si nañ waaye jamono ji nag wàllu ko soxna yi ñoom ñoo cay àddu ana fu wanent di mujjati gëtëm la tribune yéene kaay nee na jongante ba kott moom moo ca mujje leeral ay chat mooy liy ci nekkaay yi xëy fësal ci bésub tey ji bi loolu mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu lay jaajëfal. cant ak ngërëm ñel na la. maa ngi lay souhaiter nga passer une très bonne journée. ñu yendoo ak jàmm. ay jërëjëf euh, Grégoire Samba Ngom mbokk yi bu ko defee rek ngeen daal di des ak ñun léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi ma dalal Pape Malick Thiam ak Amadou bu ko defee rek ñu daal di woyal matinal bi.